président bu Rwanda dafa ñëw fii ci Ndakaaru ngir rek teewee finalu basketball Africa League bi ñu fiy amal bu weesoo nag ndaje boobu ci wàllu tàggat yaram tukki bi dina am solo lool ci wàllu diplomatie ndax ñaari réew yi xam nañ ne ay réew yu xaritoo lañu boole ci ñaari njiit yi di soog a gisee war a profiter ci occasion bi ngir gën a xamante waaye tamit waxtaan ci wàllu coopération le fii nag ci salon présidentiel bu aéroport Léopold Sédar Senghor. la ñu amalee seen waxtaan wu njëkk ci dimanche yi président Bassirou Diomaye fay dina xaar naataangoom ci palais de la république ngir rek ñu gën a wéyal seen waxtaan bu ñu ci noppee nag ci ngoon gi dinañu ànd ñoom ñaar dem ca Dakar Arena ngir rek teewee final basketball Ligue Africa bi nga xam ni moom la ñuy amal fii ci suñu réew. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen baaxoo ànd ak seen bii